mati me pakhama youtube ba khapuso jaray sa ba xamne adunya jërëjëf euh, jaajëf Aliou Ba jërë ngeen jëf euh, internet yeeg auditeurs yi Yacine Pouy jërë ngeen jëf Mame Ndiaye yéen euh, ñi nga xam ne yéen a ngi bàyyi xel ci RFM yëpp ñu ngi leen di kontaane bu baax ñëwaat seen journal de faits divers xalaas ànd ceeg sunu waa ji Mamadou Mohamed Ndiaye nga xam ni fan yëpp daf ñoo manqué woon waxoon naa la am na fu ma ko yónni noppee rek dina dina ñu fekk si waat ci li nga xam ne la ñu nekk Ndiaye Babacar maa ngi lay siyaar bu baax maa ngi delloo siyaar bu ah, baax enveloppe bi dafa manqué ñaari junni li gën a gaaw ci yàqal gone de mooy yónni magam. ma lay ma ne enveloppe bi dafa manqué ñaari junni bu fekkoon sax yónni gi ma la yónni rek yem ci la mais dafa laaj ñu sàcc fi <laughs> gannaaw amul problème yow loo def noonu la baa yaa ngi ci jàmm. maa ngi sant bu baax a baax alhamdulilah may namoon naa leen bu baax a baax a baax. namu waa Sénégal ci xalaas maa ngi nuyu également Passepartout baa yéen ci jàmm. ñu ngi sant bu baax di góorgóorlu. waaw ambulog bi ñaataa ci nekkoon dëgg-dëgg. ah mm, xaw ma sën bi daal mais xam naa ne manqué nañu. <laughs> waay sàmm <laughs> ñaari jën waay sàmm mooy ki ñu doon may. cinquante mille xaw ma kañ la woon de mu manqué cinq mille. mu naan ko patron dafa manqué cinq mille te dañ lay may. <laughs> loolooy nit ku ñuul nag. mais mbaa mu ngi dox rek. ñoo ngi sant bu baax a baax ñoo ngi góorgóorlu rek Ababacar da nga bëgg mën dem ci partenaires yi wala ma dem ci paas. nañ dem ci paas paas ay kon. Grand Ndiaye Sénégal lépp ñoo la namoon. bilaay maa leen ziar bu baax a baax. maa ngi leen nuyu Aba di nuy auditeurs yeeg internet di ziar ñëpp ñu ñu del ci waxtu bi di la jàmm. Hmm. ah waaw. yaay bu baax a baax ci partenaires yi. Mm-hmm. Euh, ñu ci mel ne Optique Vision Plus Sénégal. Euh, mais également établissement waa kër Serigne Touba Fallé frère yi ñëw ak gàmmu vite fait. Mm-hmm. di ñu ànd ak ñun ci nawet bu nekk indi savon king aloe vera wala anti acné euh, marque téléphone bii di Mion également disponible partout am téléphone am tablette am téléphone simple. am mm-hmm. également garantie un an ak service après vente boo xam ne Mion da koo teg ngir mu leen di toppal seen ay téléphone dem ci réew mi nag téléphone Mion am na fa. Optique Vision Plus Sénégal wax naa ko borom lunette yu baax yi te garantie yomb te accessible partout au Sénégal léegi Optique Vision Plus Sénégal ñu ngi fépp ci réew mi dinañ ko dinañ ko gën a détaillé Ababacar. macha allah ji xalaas dafa kii de xalaas. dalay dalay dalay dalay. dalay yokk de. parce que ah. optique man ba may fàttali ñu ne ñu benn bitik la ñu woon de. waaw <laughs> te ñu ngi de. <laughs> lool <laughs> ah, loolu de loolu de yow de yaa ko sañoo wax. <laughs> parce que xam na ne ay verre yu ñuy jaay ay verre yu wóor la jaay parce dañ la koy. Euh, garantil te gars yi dañu jàpp ne ay lunette médical comme yi ma takk rek déedéet comme yow yi ngay takk. Mhm. mi ngi ci ay ray band. ay correcteur yi sax yi yi may gis nga koy def. yi yéen voilà yéen star yi ngeen di takk. <laughs> Eh, eh. damay gis ñu ciy defar yu rafet. foofu ci Optique Vision Plus Sénégal. am na solo mais sa waa bi muy dem euh, fële Allemagne euh, fekk la fi donc faw ñu am luñ ci sànnante Sadio pare dem fekk numéro bu kenn laalul euh, njaay mun ne nañ ko ko jox moom mu mu mu mu mu marqué empreinte am ci histoire numéro boobu. te mais fu mu njëkk a marqué mooy ba mu yeggee Allemagne xaftaan la fa wàcce. dëgg la de loolu mooy suñu Sadio national. ambassadeur baa ngi dara këfu ko dara dara dara dara dara dara man musuma koo gis musuma koo gisee ñaar musuma koo gis mu takk lunette noire fumée yi pour nëbbu seen kanam. Mm-hmm. musuma koo gis ak oto yu bari yu muy yu muy yu muy yu muy yu muy yu muy fësal au-delà de li mu jàngale ci carrière mm-hmm. moo di gëm dara nekk ci dafa dalay wax ne la daal yu mu sax mu ko woon. gëm dara nekk ci ba yàlla defal ko xéewal. Mm-hmm. muy benn lu jeunes yi war a xool mais également oyof. Mm-hmm. xam nga xam nga par exemple ay Obama yi lay solal ay ay vestu vingt millions. ay Eto'o yi lay solal ay vestu trent cinq million mais mënoon na ko. am na ko nee la xaftaan. la wàcc Allemagne. dëgg la de xaftaan am na ñu naan bi mu soloon fii. moom la soloon fii tey rek loolu loolu loolu yàq wax la. mais Ndiaye loolu Ndiaye loolu même bu dee moom. il est la. il mooy li ma la wax la. léegi nag mu des mu des affaire affaire affaire euh, affaire maanaam euh, mbiri football. wala fi ñu mbër mooy sippi waaye dof mooy sàppi. Mm. amatul lu mu doon prouver Liverpool. Mm-hmm. nga olof nee na. mbër mooy sippi mais dofay sàppi. Mm. maanaam nekk ci làmb ji ne mbër nga. Mm-hmm. di daan di daan daan ba mu yàgg ñu lay daanaka daanaka daan loolu yëfu dof la mbër dëgg-dëgg mooy comme ni ndaw Ndao Tyson def dem ba mu yàgg mu ne fii laa yem voilà loolu mbër a koy def mm. dof nag mooy sàppi mm. dem ba nga xamante ne <laughs> kenn soxlaatu la ci làmb moom it looloo ko jëlee Liverpool mm. di des nag talent la ak xëy na ndimbalu yàlla am nañ yaakaar ci moom de am na lu gars yi di wax aussi mm-hmm. que le roi Sané da koo bañ a jox numéro 10 bi mm-hmm. déedéet le roi Sané jox na ko ko ci li mu wax. Mhm. moom moo ko ne sa numéro la bàyyi ma ma jël numéro bu fi amul. écrit ci histoire. et dafay mettre sax euh, ay coéquipier am à à l'aise mhm. day après kenn du am rancœur kenn du teel ah. kenn ci numéro sax. billaahi billaahi du ci numéro de. <laughs> du ci numéro de. <laughs> du ci xam dara ci football quoi. ah bu dee da ngaa am ku mel ni Ndiaye kay dina dimbali. kay non non temps temps moom maa bi nga am te football mosu man ci yow laa gisee. moom dong de du loolu nag de. lan la dafa am loo xamul. daam fu ma demoon ma ñëw moi j'ai bon. lan xalaas gaa ngi nii. c'est Modou Ndiaye. tu connais client. Mhm. day tabax ay kër Modou Ndiaye. on daa am kilifa gu mag bu nekk ci ci réew mi day def ay ay ñaan quoi. Mhm. am benn euh, waaye bu ñëw ci moom bu tudd Modou Ndiaye. wala kii Baye Niass mii foto ci kër gi nee na ma Sadio dafa oyof ba biir. bambaale gi mu dëkk ci néegu yaayam lay fanaan xam nga tamit ñi li wóoru leen tamit nga bàyyi ñes li wax nii wóoru ko mosoo fekkee Sadio fu mu yeewoo ba nga naan bàyyi eh, Sadio dafa oyof ba fa mu dëkk sax néegu yaayam lay fanaan. lu mu la ci wax takku téere nag. moo leen di photo. waaw ma benn affaire daal Sadio mos na ma koo def yow. njaay ma dugg sama néeg rus. Hmm. mooy dama toog ak sama frère yi. ma jox booy ñu dem wuti attaaya di ñëw di teg koy attaaya ak yooyu booy ne ma non kii ku nekk am looy def booy bëgg ma teg loo attaaya bi ma mer. dem du ma seet morom buy teg ataaya bi jaay ci ngoon gi ma gis Sadio teg <coughs> ataaya bi. tege na ay ma man dama daara yor ma wéru sama doy ma beew nañ jëm ci Modou Ndiaye. dégg nga Ndiaye. Uh-huh. abaa Modou Ndiaye dem ci kilifa gi mu koy ñaanal bon mu waxaale ko profession mag yooyu noonu moom maçon la day liggéey ci maçon yooyu. mooy Modou Ndiaye. waaw mhm. ak ah, xam nga comme li ngeen di wax fii rek yenn saa yi nit ki fekk la ci sa ci sa ngëm-ngëm wala sa pas-pas mu jaar la fa. Mhm. nga nekk taalibe Cheikh wala nga nekk nga nekk laay mu jaar la ci loolu. Mhm. Modou Ndiaye fa la jaar sëñ bi yow. sëñ bi mooy ñaanalaate. déedéet sëñ bi. waaw léegi ku ko jaar foofu. moo Modou moo Modou Ndiaye ko nax. waaw moo nax sëñ bi. waaw kii ñaanalante la ñu nax. waaw mais nag ci ci ay ci liggéey quoi en fait. ok ci tabax kër. mu jël këram jox ko pour mu liggéeyal ko jox ko ci lu toll ak 6 millions ñaari kër benn Thiès benn Touba boole ko ak ay nit ay borom kenkaayeri Modou njaay boole loolu yëpp ne fes xaalis ba muy la def te egglawul tabax ya yóbbu na xaalis ya leb na ñam ko boole loon encaissé nañ ñenn ñi avance dem na yoonam fay ay téléphone am. déglu déglu. ñoo ngi leen di laay biire ak laaral gun leen di laaral ci jëmm ji nga xam ni moo tudd Modou Ndiaye ñu koy wooyee Baye Modou Ndiaye Hizbul Abraar di leen laaral aw doxin woo xam ne da koy doxee ak méngoowut ak ni ab talibe war na jëfalanteeg ay mbokki talibeem ñu koy ñaawlu lool nag laaral gi nag doonul ci suñ biir ñun ñi nga xam ne ñun la ko jëfalanteel waaye daa doon loo xam ni dañ leen koy laay biire ngir ku mu yegg si caw rek nga xàmme ko te xam ni moom yi noonu yi lay doxee na jubul ba ci jiitu mooy dafa am kilifa goo xam ni Modou Ndiaye mii daa ñëwoon ci moom di ñaan lu si ngir wàllu tëju ak wàllum umte ba mu ñëwee ba mu ñaanal ko ba noppi mu yëkkati kilifa googu yëkkati fukki junni dimbale ko ngir yéen ma nekk mu am ci moom ba noppi ca ko leeralee ci la muy yëngu muy wàllum la ko leeralee mu yërëm ko yëkkati bâtiment doon liggéey lu Cees jox ko ba ko ko joxee ci diggante réseaux sociaux ba premier étage amu ci lenn lu ko neex te yëkkati na lu tolloog six fay ko ci xaalisam ak yeneen ak yeneen yoo xam ne lu topp ci similo nga xam daan na jox dara woon mu toog mën a wat ne joxu ko lii ak yeneen yu mu ko daan roppal ci suuf beneen bâtiment bu mu doon liggéey lu Tuuba daanaka fay na ko ca bâtiment bi mu jusee gii jàll dafa am benn am fer bu ñu jël ko ci saret yóbbu ko ci marché di ko jaay gardien kër gis ko foto ko yónnee ko kilifa googu yi tamit bañ ko woowee wax ko muy lay boobaak léegi ca la déclaré feebar feebar boo xam ni daanaka daana diir ci moom juróomi fan wala ñeenti fan fii may wax daanaka da koo da ba fii nuy waxante ni diggante Korite ak te kilifa googu yi xam ne daa waxale woon ak moom ci 3 ci boppam moo mujj yàggale ko waxaale woon demee demee daanaka jox na ko xaalis bépp di ko laajaat ci yeneen yu ñàkk fayday mu ko jox ngir wóolu gi ko wóolu ba demee ba nga xamante si ni kuule rek a ci des dem nañ ba teg birig gi boobaak léegi liggéeyaat été te fay ko ko ba léegi kilifa gii ko boole woon moom yi bi muy ñëw di ñàndu si boole woon kenkaay di boo xam ne dafa ren jëlee bagage leboon na ko kii lu tolloog daanaka quatre cent quatre-vingt-dix mille ba léegi fay kilifa gi xam ne moom la seqoon ci wàllu ñaan bi am na xaritam boo xam ne ñoom ñaar ñooy ànd suba ngoon guddeeg ko doxal te lenn lu ci def rek bu ca da koy wan ginnaaw te it da gëm loolu leen ay bokki taalibe leen nu leen di laay biire di leen leeral ni jëm ji fu ngeen ko gis xam leen kii mooy Modou Ndiaye Hizbul Abraham te bu toog ak rek bu wax ak rek sa yaram li muy njëkk a wax ngir wax ci te di damit dara wax jooju dara doonu ci dëgg kon na ngeen ko bàyyi xel te xam ne Maodo Ndiaye xëy na Abrahima mi def na lii te lii daa doon li feeñ waaye leneen lim def te mënuñu koo wax sax daanaka kenn xamul lu mu toll. yaa dégg de gars yi nee na ñu nañu gaaw ñang nangu na fu ñu jëm Arabie Saoudite Arabie Saoudite waaw daa am Sénégalais yi nekkoon fii di liggéey fii dakaa dem dikk. Mhm. am fi contrat yu wóor. Mhm. xëy na benn waaye mu ne leen day yóbbu Arabie Saoudite wutal leen contrat liggéey bu gën a baax bi ñu nekkee nii ñu bàyyi ko fa dem. def nañ fa un an quelque bëgg ñibbisi mun ñoo ñibbisi lañu leen waxoon dara amu ca. donc ñu doon liggéey dakaa dem dikk. waaw ñoo dem Arabie Saoudite mënatuñoo dikk. waaw d' accord. di ku leen dimbali. d' accord amul problème loolu ñaan ku leen dimbali. <laughs> <laughs> bis yi sonn nañ fa ka leen yóbbu gisatuñ ko nax na leen ci ay faux contrat. France ñu yegg si waatee fii est que dinañu amaat seen liggéey bi ñu amoon. ba ba waaj a jëlaat leen ñu xool. boobu boobaa du doon moom moom ak. moom ak ñun ak ñoom lay doon ñun ak ñun ak population bi lay doon. <laughs> ñu déglu la ay ca. man moom chauffeur dagar dem dikk am xaadim kii laa tudd maa ngi samay pees benn jógeegu ci sama basi Dakar dem dikk samay kayit yëpp mi man ma nekk Sénégal wax yaram da am ay deux cent cinquante mille trois cent mil weer ñu dajeeg benn Sénégalais Alaaji Caam mën nañu Arabie Saoudite dañoo soxlay chauffeur contrat pour deux ans expliqué ñu nañu laaj ñu suñ salaire yëpp ñu waxtaan ak moom mën nañu ah yéen booy amul leen salaire fii lu mu dee dee dee weer bu ngeen frais li ngeen di frais ba pare maximum da ngeen denc cinq cent mille yu dañ frais ah alhamdulilah loolu de moom boo ko defee deux cent boo ñëwee da nga jàpp si fi bopp wax ñu loolu man maa doon liggéey Dakar dem dikk Ibrahima Ndaw sama xarit bi moom tamit la même chose total la nekkoon di liggéey Mansour nekk station sel liggéey ñun ñëpp ay chauffeur la ñu woon ñaar ñi chauffeur si man chauffeur Dakar dem ancien militaire la si sànq si waaye la nekkoon di liggéey léegi bi loolu jàllee ñu indi ñu Arabie Saoudi toog nañ trois mois yoo xamante ni fay ko ñu rax si dolli société bi ñu fi indi nee bi avion bi ñu bi ñu jëlee Sénégal ñu ñëw dañu koy dagg loolu nekk di beneen problème ñu pare ñu jox ñu ay oto yu màggat yoo xamante ne chaque jour yaa ngi daw dépendre chaque yaa ngi daw dépendre léegi nag biñ demee ba xam ne li arrangé nañu ñu dem ci suñu ambassade expliqué ko problème yi a ñu ko amul consulaire mënut taxaw si dossier ñu def coûte que coûte fatawul lijjanti carte consulaire yi depuis septembre deux mille vingt et un ba léegi ñu ñuy dawloo tey suuba ambassade di ñu yabal ci naar bi naar bi naan ñu seen ambassade ci des ba nii may waxe yow ñoo ngi toog xamuñ ci lan nañ toog dem nañ ci ambassade ba sonn nañ ci ambassade ba sonn mënuñu am pexe ba tey ñu am pexe lim ñuy wax. ambassade li ñuy wax mooy dinaa yebal ndaw must déplacé wu ñëw damam suñ problème lu gën a nekkati problème réew moo xam ne angale arab moo fi nekk nga indi fi ambassade yi koo xamante ne arab mënu koo wax ak ñun suñ problème kan moo ci war a taxaw pour ñu dellu suñu réew ñun sàcc ñu fenn ñu réew ñu ni dañoo indi woon ci contrat bu arrangé gisuñu loo xam ñu bëgg ñibbi ñu ne ñu du yombee noonu il faut ngeen fay bor bor yoo xam ne yoruñu ko xamuñu yan bor lay béy avion yi ak liñ financé ci yëpp ngeen ñoom man joxuñu ma man sama bopp dane ma bi da koo ci këram loolu la ma wax mais sama gén ñu génnee daat la contrat nga signé ko gis tey contra sama yeneen collègue ñoom fo yi ñeen joxoon Sénégal pour ñu indi contrat yooyu ba ñëwee dañ koo cancel maanaam dañu leen yi baaxul pour ñëw la rek baaxul salaire bi ñoom ba ñëwee mille quatre lañ ñu waxoon ñëwee dañ ko wàññi mille deux cent lañ leen wax génne deux cent yi contrat yooyu ñoom ba tey si ñëwuñ bi ñu waree ñëw lañ ñu doon wutloo Sénégal ay bon via mars yooyu yëpp wut ko ba ñëwee ba fii it déposé nañ yëpp c'est fois ñuy tukki ay contrat am na lu bëri loo xamante ne xamuñu ko mais biñ amee problème ba ñëw ci ambassade bi ci la ñu door a expliqué yii ñu ne ko ñun xamee wuñ ko noonu ndax lii expliqué wuñ ñu ko Sénégal ñuy fi jiitu tamit expliqué dara loo xamante ne xam nañ mais comme ñun jàpp nañ fi yaabee suñ day yaabee suñ baay yaabee suñ président lépp fii lañu war a jubal si mën nañu baax na incha allah ñu topp ci mu ñuy wax tey suba ba mujj mu am comme ñu yabal ku ñu booleel damam pour mu régler ñu suñu problème waaju baax ñu koy wax Ismaïla Ndoye moom it liggéeyam la yor liggéeyul ci ambassade bi comme ñi liggéey ci ambassade bi kenn mënta déplacé wu moom liggéeyul ci ambassade moom topp ci topp ci topp ci ba keroog bi ñu demee ci naar yi naar yi nañu saye signature ambassade bi moo ci des pour mu defal leen décharge xam naa nag moom comme moom du ambassade du dara du nangoo signé décharge bi ambassade nangu ñëw déplacé wu déplacé wu nañ jóge fii Riyad dem damam seeti Mbayang suñu defaloon décharge aju màkk gii bañ ajee ba pare dañ ànd ak moom dem ndax béyee tawuñu ba nii may wax ak yow hmm? du yaa dégg de ñu ngi ci problème de Ndiaye nit ñi bu ñuy dem bitim réew nañuy yëglu. ñu dem leer. waaw boo demee ba ci réew ma nga dem sa consul nga yëglu mais fekkee da ngaa dem nekk say mbir ba affaire yu cóol nga bëgg a taxaw ne dem naa fa faaluñ moo lay tamit demeewul noonu. day métti ah, nañuy yëglu waa ji daa liggéey wàcc yow Ndiaye jóge bureau taal moto moto bi paan mu yóbbu ci benn mécanicien pour mu réparer ko ko mécanicien fay ko waa ji fay ko pare mu ne ko damay dem jënd affaire bi ñëwaat ba tey ji mécanicien bi ñëwaat yóbbu toog fa di ko xaar. moto ba yóbbu na ko kon kay paanul. non da koo defal système direct quoi. Ah. ne ko day jënd benn démarreur la xaw ma. Mhm. pour ñu defal ko. waa jox ko maanaam da koo bricolé ba moto mën a tàkk. waaw mu taal ko dem. mécanicien bi nee na may li ma lay wax nii léegi mu ëpp deux semaines bi ma waaj a léegi. mais ba fi ñuy wax nii nii nii nii mécanicien bi lay ñëw. mais xam naa dafa amagul pièce bi rek. waaw loolu xam naa moom lay woon ne rek. ñu déglu. <laughs> dama amoon problème ak benn mécanicien dimanche le 5 juin bi passé dama jóge sama kër doon dem police jëppal ñëw ba ci buntu police bi gaare sama moto dugg ci biir police bi ma génnaat ba ma génnee pour démarrer sama moto far courant bi daw nag courant bi ñëwul après bon ñu ne ma rond-point liberté 5 am na ay mécanicien benn waay bu doon romb yor moto mu teg ma tànk ba rond-point liberté cinq ma yegg si benn atelier mécanicien foofu atelier booy pullo fek fa benn mécanicien bu tudd Alvin François Gomis ñu koy woowee franc man tur boobu laa fekk ñu koy woowee franc mu ñëw xoolal ma xoolal ma moto bi vérifié par la suite mu ne ma sa moto dafa am problème contacteur moo tax sa courant bi du ñëw boo contacté courant bi du ñëw ma ne ko bon la moo ciy pexe mu ne ma ins bi munu comme que tey dimanche la munuma am contacteur léegi dama lay génne ñaari fiir defal la ko direct bu ko defee le lendemain su ma amee contacteur dinaa la woo nga ñëw ma changer la sa contacteur mu defal ma ñaari mu génneel ma ñaari fil ma koy directé noonu di ko taalee noonu suma moto après ma fay ko ma laaj ko main d'œuvre ñaata la mu wax ma trois mille ma génnee trois mille fay ko ma ñibbi tranquillement sama kër le lendemain nag déggantewuñu lundi passé mardi mercredi ba jeudi jeudi 16 heures mu woo ma téléphone ne ma am naa contacteur ñëwal ma changé la ko ma ne ko damaa nekk sama bureau wàcc ko ma 17h laay wàcc mu ne ma kon boo wàccee 17h ñëwal ma changé la contacteur bi man dama def noonu ba ma wàccee 17h ma dem joge sama bureau dem ba rond-point Liberté cinq ñëw gaare fekk waa atelier bi ñëpp toog patron am ak yeneen ouvrier ñëpp toog mu nuyoo laajte franc fekk ko foofu mu toog mu ne ma booy maa ngi ni yow laa doon xaar yor nga cinq mille yi ma la laajoon pour contacteur bi ma ne ko waaw mu génnee cinq mille yi jox ko mu ne ma day dem jëndi contacteur pour ñoo changel ma ko bu mu taalee sama moto ak fil yooyu mu génne loon def ko direct dem ca laako ko gëj gis ba tey ji may wax ak yéen man ak ouvrier yi nekkoon ci atelier bi ak patron fa la ñu toog ñoom sax fa lañ ma bàyyi ñoom ñëpp ñu taal seen moto dem wëri ko ñoom ñu war ko ba vingt une heure dix huit heures ba vingt une heure gisuñu ko ñoo fekkaat ma ci place ne ma ñun te fépp fu ñu xalaat ne dafay fréquenté dem nañ fa seeti ko mais gisuñu ko representanlar Bugri prezidenti Kurulu Kulavar Santa Gari San Sori Fari Sori Victory Gori presentanlar Yapre Bimri Zazi presentanlar Binga Moda Mori Sori Sira Kata Dakar Plato Kapra Sira Kosra 1902 Bismillah Bari Bakau Naya Gila Muna Clarence Officiel du Gouverneur Général Afrique Centrale Le Personnel Sawar Jam 1964 Vab du 42 Ola 2012 Maxal depuis 2012 Ni Ngam Fina Maf Ñu xaaran ba xam kii woote ba ko jot président ko kala roon ak fan la woon salaamaaleykum waaw sëñ maa ngi ziar ñu delloo si àdduna tur beeg sant beeg fi ngay woote. Mbaye Diop taximan. Mbaye Diop taximan. waaw taximanu Dakar wala. Bambey Dakar quoi Dakar Dakar. bu Dakar. ok waaw sa woote ci biir. waaw waaw dafa metti quoi dafa metti hmm. euh, ndax euh, ñun mënuñu nekk ay taximan. Hmm. nekk ci dëkk bi. Hmm. yoon boo jaar ñun la fii dañ koo baare dañ koy defar dañuy nangam dañuy lii dañuy laa. léegi lu ngeen bëgg. non liñ bëgg mooy xanaa benn booy defar benn tali. xanaa nag benn tali rek ab rëdd boo xam ne fii la ak fii nga bëgg koo defar benn un an deux ans cinq ans mais loolu kenn mësu ko gis. ah defar ba mu baax ndax xam nga doon ci booyewaale at assainissement bi pour wàll maanaam bu tawee ndox mi daan taag yooyu. man non man li ma jaaxal sax du loolu quoi. Hmm. man dama jëlale sax ay assainissement ak defar yeeg ñoom seen. Hmm. mais Dakar koñ boo jaar ñu ko baare ci tali boo xam ne matul deux mètres. ah waaw dañuy defar rek dañuy defar rek sëñ bi. ah mais defar ba ci leen ñun taximaan yi dañuy sonn. dañu sonn dañu tay mënoo jaar fenn fii ñu ne la teer ba dugg fee nga jaar fee ñun la dañ koo baare ndax kii travaux nangam lii la ba kañ mais ñun lan la ñuy dundee. Ah, BRT bee bi. pour lan. BRT bi ñun taxi tee ñu ko ëppal solo. Ah. lan mooy BRT ñun am ñun ñun am lenn ci dëkk bi. ndax lan cag-cag yi fee BRT baa nga fee. Dakar dem dikk nangam nangam mais ñun ñun léegi ñun ñun ñun taximaan yi lan lañ war a dundee lan. ah, ah? xarum tabaski sax amuñu ko état bi sax dafa war a jóg taxi par taxi mu recensé ñu kenn kon mu jox la xaru tabaski.

Tornado yaa ngi ci bi teer baa ngi daw fii. BRT ah, baa ngi ñëw ah yéen kay taxi maa ni non taxi moom moom ku yeb rek bàyyi ko jaayi ngooñ. xam naa ne lii moom doy na te mënoo boole loolu. sareetu ngooñ sax da koy tane. non ah. dafa doy waar boole loolu ba pare li ci gën a yéeme. Hmm. boole loolu ba noppi boole ko réew mi réew mi nun ko gafe kañe sax du gafe nii. ah doy na ku nañu ah, ah, gas hmm, machine a gas nag du kaña a gas de. ah déet de. ay machine a gas de. gasinu kaña la de. kon baax na kon baax na. waaw doy na waar taximan yi nañ leen gestu jox leen seen gëdd ci réew mi. ayca bu président ñëwee dina ko dégg jox ñu li ñu war a am. bu président ñëwee dina ko dégg. waaw nañu wutale xar moom président jox na. baax na baax na bu soobee waaw ko mooy daan génn mars. ma ne ayca ayca mars dafa xew. waaw baax na waaw baax na waaw baax na waaw baax na. ayca votre correspondant peut-être. waaw ndox ndox wax naa li ma bëgg a wax